asalaamaaleykum gars yi asalaamaaleykum gars yi ñoo ko gisandoo gis ngeen ko Ousmane Tounkara a été arrêté en États-Unis pour le brûlement des maçons et le terrorisme ah léegi nag ku ñu répété nag moom yow yaay dee rek man pare naa ci état du ma ci waxati accompagner leen manifestation bi neexoon na am ngeen li ngeen bëggoon Macky dina leen may jàmm ngeen may jàmm Macky waxatuma ci état de yéen a ngi seen saaga leen Macky bu ngeen amee lu ngeen wax président ngeen wax ko may jéggalu parce que président kilifa la Macky Sall la ñun ñooy jéggalu ah di jéggalu tamit ñoom Idouane nag ñoom pare naa ci état saagaatuma état man nay commune di yëg nekkatuma ci état man tënuma ko ma rëpp damaa jiite ay nit man damaa jiite ay nit damay liggéey responsable la fi nit ñi dañ maa xam sama jabar buggul may wax ci ay ay ay Macky Sall ak ay nguur yooyu ngi dégg j'ai fini chéri koko lan laa war a def